mbokk internet yi ñu ngi leen char bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñàll nga abonné nga activer cloche bi bu leen ko di fàtte nag di liker vraiment c'est très très important xibaar dañ koy tàmbaleeg nancoo bi nga mooy Sadio Mané kon bokk na ci top 10 des meilleurs buteurs africains yi ñu ngi doxal voilà nag foofee ci Saudi Pro bi mooy que en Arabie Saoudite ki nga xam ne mooy premier nag euh, du keneen ko doon marqué benn mooy Zobal Etihad benn mooy Amala avec 17 réalisations George Kevin Nkundu 15 buts et que Sadio Mané voilà nag mi ci neuvième toog bi avec 9 réalisations. Guinée moom mi nga am doon na ma match xaritoo ak Bermude Bermude nag euh, mën nañ ko trouver voilà ci booru Canada puis boobee nag voilà mën naa ñu bëri xamuñu ko waaye Guinée kat mooy mujjee daan juróomi bal ci benn. jàppale nag euh, loolee FIFA nag moom moo ko initié bu ko defee équipe bi kat mën a dajee seen biir voilà ci différents continents yi. Dani Alves féexal nañ ko nag ginnaaw gi ba mu tegee 1 million d'euros loolee lañ naan caution bu ko defee kat voilà ñu may ko la nga xam ne mooy. liberté provisoire comme ni ko fësalee ci kayitu xibaar yi waaye nag du quitté foofee ci Espagne ñi ngi rumbanaat wala boog ñi ngi fësal naan ka nga xam ne moom mooy. Memphis Depay voilà nag moo ko jàppalee teg koppar yooyee nag waaye nag ñu bëri kat nee nañ Dani Alves moo ko fayal boppam. waaye moom buñ ko féexalee beneen brésilien ka dugg na ci guut ak kuñ naan Gabriel Barbosa ñu koy dëppalee Gabigol moom kat benn attaquant brésilien la mu làmboo ci at ñaar fukki ak juróom-ñaar liñ koy tuumaan nag mooy ko dafa ger ña nga xam ne ñoo doon amal la nga xam ne mooy wàllum euh, contrôle antidopage kon voilà nag doon jéem a échappé ci noonee kat nag bañ ko càmbaree def cee enquête kat teg nañ ko ñaari at yi nga xam ne du ko football. Ligue des champions xam ngeen ne format bi dafay changer pour la saison prochaine voilà nag fanweer ak juróom-benn équipe ñoo ko dara jëwante mooy que 36 équipes ci noonee la nga xam ne mooy koppar yi nga xam ne nag moom lañ teg pour neexale ko club bi wala boog accompagner leen ko UEFA fësal na ko bu ñu soxandikoo ci RMC. kon benn enveloppe bu 3 milliards d'euros kat lañ teg ci table bi bu ko defee kat ñu mën ko séddalee ci différentes compétitions yi lu ci mën ni voilà Ligue des champions Ligue Europa ak la nga xam ne mooy Ligue conférence jàpp leen bu baax nag ki nga xam ne mooy gàddu nag Ligue des champions bi dina am 86 millions d'euros bu soxandikoo ci kayitu xibaar bi nga xam ne mooy AS. dañuy utali ci Espagne ndax moom mi nga mooy Vinicius Junior laata seen jonte contre Espagne jàpp leen ce mardi moom kat en conférence de presse dafa tuur ay rongoñ li ko waral mooy que lu muy dund métti na nag ci wàllum racisme supporter yi ñu ngi koy yàq lu ma ne mais ci ay stade di ko saaga lu nekk ñu yàq ko ci deram ci noonu ñu laaj ko question bu aju ci wàllum racisme. mu ne li nga xam ne voilà nag bu ko xalaatee wala boog ñu laaj ko ci da ci am njàqare ndax kat nag ku am der bu ñuul sonn nga lool rawatina nag. foofee ci Europe mune ne nag du Espagne dong comme ni nga ko fësale ci làmmiñam jàpp leen bu baax du samay kàddu Vinicius Junior mune ne leen dong lay sàkku ci ñoom mooy que moom football la ak ñoom kon moom voilà nag nañ ko may afiyam et que jàpp leen bu baax nag moom mi nga mooy Vinicius Junior ñu laaj ko ndax kat mën na quitter Liga mune ne kat bu quitter kat day may ay noonam la nga xam ne lañ bëggoon ba tax na kat kat di xeex ak kat di deram et que ma rappel que Brésil moo war a ak waa Espagne ne ko sa mardi à partir de 20h20 GMT et que ci yeneen match xaritoo yi jàpp leen bu baax nag mën nañ ci nemmeeku ay choc lu ci mel ni Uruguay Côte d'Ivoire 19h30 GMT beneen choc Angleterre Belgique le 19h45 et que Allemagne ak waa Pays-Bas même heure mooy que 19h45 et que choc entre africain Nigeria contre Mali à partir de 20h. GMT ñi wéy la xibaarikat moom mi nga xam ne mooy Lamine Yamal Vinicius Junior ak Nico Williams jàpp leen bu baax ko ci mën Rodrigo wala nag daje nañ amal ay nattal laata seen jonte boobee sa mardi ñu war ko xaar bu baax a baax. foofee ci Espagne yi des na ki nga mooy Marcelino xam ngeen ne mooy yoon Villarreal boo leen di fàttali ko yoroon na Marseille jàppaleen jàpp leen nag. moom lañ tab entraîneur bi gën a xarañ ci mois bu mars bi bu liggéey Liga ISPORT ma rappelé que jour bi ngeen moom lañ taboon nag mooy Vinicius Junior seen jour boobu wala boog waa Real de Madrid kontaan nañ lool seen ndaw biir mooy Nico Paz ba tax na voilà nag dañ ko bëgg a garder foofee mu doxal ba saison bi nga xam ne moom lañ jublu buñ soxandikoo ca ka nga xam ne mooy Matteo Moretto ek Mario Corte Gana mu ne Real de Madrid voilà fësal na ci xibaar ka nga xam ne mooy Toni Kroos bu ko neexee nag. mën na prolonger contrat ci kaw ñu amal déggoo ndax kat kookee kenn du moom li wanekat wane contre France ñëwam foofee ci Allemagne kat voilà joxaat na leen la nga xam ne mooy espoir et que merengue ka ko pour bàyyi ko et nga xam ne aussi noppeeguñ pour bàyyi ko nag mooy Luka Modric aussi ñi ngi ruumanaat ci kayitu xibaar lu ci mën seen conseil d' administration. voilà nag ñi ngi amal waxtaan ak kii di kuréel bi nag bu ma doon nag ñu ngi koy séentu bu baax nag mu utalee foofee ci championnat bu Messi bi nga xam ne mooy MLS. politique góor ci ay xibaaram mu ne Bayern kat jox nañ kat ultimatum kii nga xam kat mooy Alphonso Davies ñi ngi xaar la nga xam ne mooy tontam ndax kat newul leen gul waaw waxugul déet ca la nga xam ne mooy dafay desandi wala boog dafay bawoo Bayern nag voilà nak pour l'instant teg nañ ci table bi lu mat 14 millions d'euros ñu ndar koo ko fay par am waaye ci kaw mu xaatim contrat buy dem ba 2029 pour rappel moom ak Azam ñi ngi doon sàkk lu yegge du jege 20 millions d'euros ci wàllum salaire par an kat club kat duñ ko dégg waxtaan ñu koy wéyle waaye kat ñu ngi xaar la nga xam ne mooy réponse am waaye nag bu mënul antu nag dinañ ko jaay waaye nag loo jegee cinquante millions d'euros kat lañ koy jaay yee jàppale Real de Madrid kat ñu ngi ci ginnaawam ek ñoom kat noppi ñu teg koppar yooyee ndax kat jàpp nañ jour à un an de kat. li marché bi nangu mooy kat ñu wàññi koppar yooyee bu ko defee kat voilà déggoo mën a am seen diggante kon loolee voilà dinañ ci gën a xuus si suñu yeneen ay xibaar. bu fekkee ci wàllum góor ñi saay bu ñu dajee volan ak le monde entier di ko waxtaanee mooy classico bi xam ngeen que Barça contre Real jàpp leen ci wàllum jigéen ñi aussi Barça nag ñi ngi wane seen doole ci këla merengue boobee ndax ñoo leen mujjee daan seen ab championnat ñetti bal ci dara ñi ngi fësal kat seen 16 dernier match mooy que fukki ak benn match yi mujjee doxal yépp Barça moo ko daan yépp kon pour résiga kat Barça ñi ngi wéylee seen ab yoon ci championnat boobee kii nga xam ne moom Bielsa kat dafa féexal ka nga xam ne mooy Araujo bu ko defee mu delluwaat nag foofee ca Barça pour rappel amut nag benn gaañu gaañu voilà nag da ko mettre la disposition du club catalan bu ko defee kat voilà nag mu noppi voilà lépp yemb kat mu mën a wéyle li des ci saison bi ka nga xam ne nag amee woon na gaañu gaañu comme ni nga ko fësale woon ci kayitu xibaar mooy Jules Koundé voilà seen coono tamit ñoo amal contre Allemagne waaye nag voilà nag bonne nouvelle baa ngi nii moom voilà dara xuri ko ek moom reprendre na la nga xam ne mooy ay entraînement am ek ñu fësal ci kayitu xibaar yi kii nga xam ne mooy Araujo jàppale Barça nag ñi ngi jege lool nag mu bu ko defee mu mën a prolonger la nga xam ne mooy contrat am naam kat doon na hésité ndax kat Bayern na ñoom tegoon nañ lu takku ci table bi rien que pour mën a dalal ko waaye jàppaleen bu baax nag Barça réussir nañ retourner la situation ka nga xam ne mooy Laporta moo fa jaar bu ñu sukkandikoo ci Mundo Deportivo. agent bu Victor Roque bi naamkat joram boobee voilà amul temps de jeu bu doy foofee ca Barcelone mu ne nag club yu bëri nag ñu ngi yëngu pour mën ko dalal ñeneen ñi noppi nañ teg 50 millions d'euros waaye kat mu ne joram boobee demul fenn ndax club Blaugrana boobee dañuy compter ci moom ek moom réussite dong la gis ci moom. ak e lu ci mëni la saison prochaine ki nga xam mooy Robert Lewandowski naam kat voilà nag ñu bari ñu koy critiquer waaye ci saison bi ci Liga nag am na ak ñett but mooy que Therese bi moo amoon juróom ñetti pass ñu dugal mooy que huit pass décisif ek ñi ngi fësal ci kayitu xibaar yi jàpp leen bu baax nag maillot extérieur bu Barça comme ni ngi ci natal bi kon kat ñoom dañuy wéyal ak Nike naam am nañ bébét nag créer seen propre équipementier bu ko kat loole mën leen maykat ñu dugal ay koppar yu takkukaat ci seen ay gafa ñu àddu ci Atletico Madrid amal nañ déggoo ak seen joueur bi nga mooy kokkee seen ab capitaine boobee nag moom kat dafa def sacrifice bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano wàññi la nga xam ne nag Moy salaire am bu ko defee mu mën a avec les colchoneros et que contrat boobee dafay dem ba 2025 et que nag am nañ mbébét nag yokkalaat ko beneen at buy dem ba 2026 pour rappel foofee ci Atlético Madrid lañ ko formé et que tàmbali na faa doxal depuis atum 2009. ñu bay Espagne wax foofee ci Angleterre kii nga xam ne mooy Pierre-Emile Axouber bi nga xam ne maa ngay doxal ca Tottenham doomu Danemark boobee ñu ngi fësal nag dina quitté. voilà nag la pour su boobee jàpp leen bu baax cet été comme ni nga ko fësalee ndax contrat am dafa war a jeex juin 2025 et que nag Tottenham ñoom ñu ngi préparé benn offre bu 30 millions d'euros wala boog bu 40 millions d'euros ndar ko jébbal waa Chelsea bu ñu soxandikoo ci Football Insider ñu mën a jënd Conor Gallagher Man City aussi ñoom kat noppee nañ wala boog ñi ngi waajal signé document yi moo leen di may ñuy signé doomu américain bi nga xam ne balaa nag ko football am yaakaar ci moom la muy uyoo ci Wonderkid Cavan Sullivan jàpp leen moom kat voilà dans les années à venir dina rejoindre le club de Sky Blues moom mi ngi juddu ci atum 2009 kon kat jàpp leen tur boobee bu baax a baax ndax kat li liñ gis ba mën ko dalal kat xam ngeen na kookee kat. jour bu xarañ ci li muy amal Mohamed Salah nag buñ mayul mën a utile ci Arabie Saoudite bu fekkee kat prolongé bu contrat avec waa Liverpool ñu ndar ko fay benn salaire bu takku lool ci club benn mooy Al Ittihad buñ soxandikoo ci Gazzetta dello Sport lu mat 200 millions d'euros lañ ko nar fay par an ek Mohamed Salah nag ci ay statistiques am jàpp leen bu baax depuis ba mu tàmbalee doxu ci Liverpool jàpp leen 232 buts 101 passes décisives ci 380 matchs yi mu jot a doxal avec les Reds. AS Roma nee nañ dañu conservé la portugais bi nga xam ne mooy Renato Sanchez Paris moo leen ko abal ek kii nga ne mooy Guillermo Ochoa jàpp leen portier mexicain boobee dafay quitter foofee ca Salernitana ek lu mat juróom-ñetti at Sénégal kat wala nag mosul génn ci première wala boog ci deuxième bu classement FIFA ci diwaan bu Afrique ek loolee mooy may ñu de benn transition wax suñu joxante bi nga xam ne moom lañu war a amal wala nag contour benn ci talaate bi jàpp leen bu baax mën ngeen ko suivre en direct sur la TS1 et différentes plateformes bu fekkee nag voilà nag conditions yi may nañu ko nag mën nañ ko diffuser sur notre chaîne. et que ñu àddu ci Aliou moom mi en conférence de presse mi ngi àddu li moo waral mu convoqué fanweer ak benn ci ay jour mu ne nag voilà dafa bëggoon gis ñenn ñu bees ñi kat ñu doxal am na ñi nga xam ne yàgg na leen gis ci tañeer bi balaa ñu wane seen bopp kon voilà nag il fallait mu insuffler du sang loolee la amal contre Gabon. waaye mu ne groupe bu mois bu juin bi nag dina uute ak groupe ba nga xam ne moom la war a wóolu au mois de juin bu ko defee ñu war a amal jowante contre RD Congo ak waa waaye mu ne nag temps de bi dafay am solo lool ci ndawam yooyee bu ñu delloo seen ay club waaye nag mu ne pour l'instant du affirmer ne quatre jours yi nga amuñu temps de jeu seen ay club voilà nag duñu bokk ci liste sam boobee ñu koy séntu wala au mois de juin waaye di leer ba leer du samay kàddu Aliou Cissé mooy wax mu ne bëgg na gis jours yi nekk à cent pour cent et que ñu joxe la maximum ci jogante yooyu ñu jublu. ci ay kàddoom mu nekkat équipe bi nga ne moom lañ gisoon contre Gabon balaa nag lu bëri dina ci changé bu ko defee ña nga xam ne woon ca Bamba balaa nag mën nañ doxal ci noonu ñu àddu ci onze probable bi ci cas yi balaa nag on mettra Seny Timothée Dieng Moussa Niakhaté Kalidou Koulibaly ñooy former le charnier défensif. Formose Mendy moo fi des comme latéral droit kon moo fi sës mooy doxal foofee Mikayil Ngor Faye vraiment on aimerait bien le mu confirmer à gauche Dion Lopy ci milieu bi voilà nag un milieu défensif jàpp comme sentinelle et que Gana Lamine Camara ñu ñu nekk un peu à l'avant et que bu baax à gauche voilà nag on mettra un certain Amadou Diouf pourquoi pas Iri Ndiaye ab droite et que Boulaye ca kaw pourquoi pas le pourquoi le choix de Boulaye parce que loolee kat dina ko may confiance moom mi am na jafe-jafe ci clubam boobee di Salernitana kon gars yéen aussi ma ngeen proposé une onze probable ci commentaire yi voilà nag ko ci mel ni Habib Diarra aussi on aimerait bien le voir mais voilà nag match premier mi-temps ak mi-temps la voilà ci mi-temps bi doy changement yu comme ni nga contour gaba bu ko defee que les novices mooy que ñu bees ñi kat ñu gis leen ñu wane seen bopp laataa ñu xam fan la ñuy taxawandi suñu ay prochaines séances gaa ñamale fa fekk xibaar ji leen jaajëfal ba beneen yoon sur les sports 221